alhamdulillah waaw niñ ko xamee koor sunu borom moo ko farataal ci xeet yi fi jiitu woon farataal ko ci xeetul islaam yàlla subhanahu wa taala moo bind lim bind mu tànn ci ay mbir yu ko gënal suñ borom moo bind doomu aadama yi tànn yonent yi ñu gën ci yonent yi yooyu ñaar fukk ak juróom ñaar yi alquran tudd te ñaar fukk juróom yi nga xam ne ci biir ñaar fukk juróom ñaar ñaar fukk juróom yi suñu borom da leen tudd en tant a ay yonant waaye mu dolli ci ñaar ñoo xam ni da leen a tudd waaye tuddu leen en tant que yonant yu mu yónni waaye daf leen tudd en tant que histoire bu dox seen digganteeg Moussa kenn ki mooy Xudar bi yàlla netta ci sootul kahfi keneen ki mooy Yosha ibnu Nun di remplacer Moussa ak ak ak Haroun ci banu Israil ginnaaw bi ñu fi jógee xale boobu Moussa àndaloon ba muy tukki pour seeti xudar wa id qaala Moussa li fataahu fataa boobu mooy Yursha ibnu Nun li ëpp ci ulama ut tafsir niñ ko ñaar fukk juróom yooyu ñu gën ñaar fukk juróom yooyu mu tànn ulul azmi muy juróomu yonent yi di Noox di yonent Ibrahim di Moussa di Isa di yonent Muhammad ñu gën ci yonent yi mu tànn yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wa salaam mu gën ci yonent yi suñu borom bind juróom-ñaari fan tànn ajj ba su mu gën ci fan yi suñu borom bind trois cent soixante cinq jours ci année bi tànn bésu Arafat mu gën ci yàlla wàcce ay téere tànn Alquran mu gën ci téere yi yàlla wàcce ay diine tànn lislaam mu gën ci diine yi suñu borom subhanahu wa taala indi ay xeet sàkk ay xeet ci kaw suuf tànn xeetu yonent yàlla Muhammad mu gën ci xeet yi suñu borom subhanahu wa taala eh, ay bërëb yu bëri ci kaw suuf suñu borom taamu ca bërëb yooyu yi ko gënal mooy jàkka yi jàkka yi mu tànn ñetti jàkka yi ci gën muy al masjidul haram ba nekk Makka al masjidul nabawi ba nekk Médine al masjidul aqsa bi nekk Jérusalem ca Palestine suñ boroom subhanahu wa taala sàkk fukki weer ak ñaar mu sa mu tànn li nga xam ne mooy weeru koor mu gënal ko ci weer yi suñ boroom sàkk ay malaaka tànn jibril mu gënal ko ci malaayika yi doon seen njiit kon weer yeeg ñaar douze mois suñ borom tànn ci weeru koor mu gën ci weer yi weeru koor woowu nekk loo xam ne tuutiwul suñ boroom mi ngi ko farataal ci ñaareelu at ci gàddaay gi niñ ko xamé mbolém atté l'islam bi ya ci ëpp wala ya ci gëna bëri fouf wala bu dé bu la nexé nga ne lépp bam dess des ñu ko faratalé Médine julli lañ faratalé Màkka ak li nga xamné moy tere lu aju ci walu tatfif muy wàllu fraudeur ndaxte sar ba koy jàngale muy wayrun lil mutaffifin alladina ida taalu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yaxsiruun saar woowu muy suratul mutaffifin makkiya la donte borom xam-xam xaw am wute ci ñoom al imaamu suyuti wax na ci téeréem boobu al itqaan fi ulumil quran ne makkiya la waaye borom xam xam wute nañ ndax dëgg-dëgg màkk la wàcc wala ci yoon bi yonent bi gàddaay diggante màkk ak Medine al qurtubi wane ne mi ngi wàcc ci yoon bi ak ñeneen borom xam-xam tafsir wane ne ci yoon wi la wàcc waa donte wàcc na ci yoon bi yenn borom xam-xam yi ko ci asuwar al makkiya muy saar yi nga xam da ngeen di jàppee ay saaru makka ndax la traité di wax ci wàllu yowmal qiyam di wax ci wàllu tawxid di wax ci wàllu bokkaale di wax ci li nga xam ne mooy atte yéeféer yi e, yooyu te loolu moo nekk ci saar wi su ko defee atte yooyu ñëwaat ci màkk daanaka kon mën nañ ko li ci ëpp nag muy koor di azaka di aj màkk di umra di muuraay di jihaad di li dagana jënd li dagana jaay atte yooyu yëpp ñu ngi wàcc li nga xam ni moom mooy Médine te ci ëpp nag ñu ngi wàcc ci ñaareelu atu gi koor ci la wàcc aj màkk ci la wàcc e, li nga xam ne mooy azaka ci la wàcc kon atte yëpp daanaka fa lañ wàcc yonente bi alayhi salaam ñu ngi farataal ci moom koor ci ñaaru at ci gàddaay ci weeru Shaaban alayhi salaam mi ngi génn àdduna fukkeelu at beeg benn ci gàddaay gi ci shahru rabiul awwal loolu boo ko wàññee mooy alayhi salaatu salaam woor na juróom-ñeenti koor kon yonente bi alayhi salaatu salaam koor wàcc ko yàlla ko koor bu fekkoon am na koor ko wàcc moom lay doon te woor na juróom-ñeenti koor kon li muy tekk mooy koor dafa nekk lu sax lu dëgër ci lislaam lu ñu war def wàccul kenn parce que yonente bi woor na juróom-ñeenti at kon bu fekkee moo woor te yàlla nee na ko li yaxfir allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma taaxar te nag de yàlla jéggal na la sa bàkkaar ya ci jiitu ak ya ci mujj ànd ak loolu mu woor juróom-ñeenti koor ki ñu ay bàkkaaram kay bu fekkee am na ko warta woor moom la ànd ak loolu woor na waa këram woor saxaaba yi woor mu dugal xeetul islam ne suumu li ruyatihi woor leen su ngeen ko gisee kon koor farataal gu dëgër gu feddaliku gu sax ci lislaam goo xam ne caaxaan taxul nit ki bañ kaa def mbokk yi weeru koor naka lay saxe weeru koor bi ngi saxee ci ñaari mbir mooy ñu gis weer wi gis weer wi wala ñu matal saabaan fan weeri fan buñ nekkee ci weeru saabaan muy baraxlu wi ñu nekk ñu nekk ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dañuy séentu ca ngoon nga bu jant bi sowee weer wi ndax am na ko ko gis buñ gisee weer wi dañuy woor bu fekkee gisuñu ko ñu matal saabaan fan weeri fan parce que weer ci lislaam du passé fan weer mënta nekk fan weer benn kon fan weer bu matee gis nañ gisuñu bés ba ca tege xaal weer benn fan lay doon ci weer wa ca tege maanaam ramadan ba benn fan ci ramadan kenn du ci lekk kenn du ci naan waaye bésu koor la mbokk yi bu ñu xoolee li ñu gis mooy euh, gis weeru koor ñaari anam la mooy soit yow nga gis walla ñu gisal la parce que da ngay ko naan moom daal jàkk rek te yow jàkk gi néew na yow nga def jàkk keneen moo naan jàkk waaye yow bëriwul looy def jàkk woor nga at yu bëri te gisoo yow keneen a gis kon jàkk gi mën naa nekk yow mën naa nekk keneen li koy عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نينا يغاني سنتن ترى الناس الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام نينا دانيو سنتون ويربي جمر ينتبي عليه الصلاة والسلام نينا كان كيس ويربي من ما هو بس بس كده ما جنون نكتي علي بيجودي نيو ما كيس ويربي يعني بيجي سير ويربي ما Euh, ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam bi ma ko waxee nee na yonent bi woor mu digle ñu woor <clears throat> xaris boobu tegtal la ci ne weeru koor pour ñu woor ko bu ko kenn nit gisee doy na bu dee nag woor yi il faut ñaari nit parce que woor moom pour nga ne nit ñi gis naa weer wi kenn su boobaa loola pour nit ñi woor sax day xaw a jafe waaye kenn nit suñu woon ne ah man daa mel ni weer laa xaw a gis sax di nga gis ko woor yi moo tax ñu bëgg woor yi moom il faut ñaari nit ñu wóor te maandu mbokk yi kii gis weer wi nag ay bëtam daa war a neex ay bëtam daa war a leer day nekk koo xam ne euh, gumbawul day nekk koo xam ne bëtam naqariwul doo koo xam ne su ne woon gis naa weer wi soo ko wooyee ba mu ñëw nga tàllal ko juróomi baaraam ñaata ñaata laa la tàllal mu ne ñeent wala wala ñaar soo ko woon bu ñëw nga tàllal ko bii li nga xam ne mooy billet cinq cent ne ko lii la mu ne mille francs kooku ku mënta gis li ne ci kanamam mënta xam ne ay milliards yi la nekk sa kaw kon su waxee moom la gis waxul waxul lu am kon na wér na weer yi gis beneen bi dañ koy am na biddéew bu dee ci kaw asamaan ñu koy wax zuhal biddéew boobu dafa xaw a niroog weer te léeg-léeg ñenn ñi dañ koy gis jàpp ne weer la kon ne wér ne bët yi bët yi bët yi wér na pour gis weer na wér ne moom it weer la gis loolu daal na wér mbokk yi loolu da doon loo xam ne day doon lu wér mu bàyyi ci xel bu baax beneen bi mooy euh, matal gi matal gi suñ matalee su boobaa ñu daal di nekk nag ñoo xam ne dañuy dugg ci koor gi koor kan la war mbokk yi ci lislaam koor mi ngi war julit ab yéeféer koor waru ko ab juif koor waru ko ab chrétien koor waru ko bokkaalekat boo mësta nekk ci benn diine koor waru ko su ñoo ñëpp baatu yéeféer bi boole na leen waaye dañoo rawante ci ay degré mbokk yi pour nga nekk koo xam ne da ngay woor foog nga dugg ci lislaam boo nekkee ci beneen diine ñëw naan da ngay woor da ngay xiif ak maral waaye wooroo parce que suñu borom dani wa man yabtaghi ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa fi l axirati min al xaasirin koo xam dafay jaamoo yàlla ci beneen diine bu dul lislaam ginnaaw bi lislaam wàccee lu mu def duñ ko nangu fii ci àdduna فلن يقبل منه دين كون نغول في تي وفي الاخره بو نيوي الاخره من الخاسرين داي بير دا فاي بير رك باسكو كوم امو فون دا داي بير لو موتاخ كون كي وور فوك مو نيك تي الاسلام كي وور فوك مو نيك تي الاسلام نيارال بي فوك مو نيك ماجور خالي بو نداو وور وور كو تي الاسلام مي سو وور رك دين كو بيندل تياب انس نينا صحابه دين دادل خالي دافال لين كوم جانر اي لي ني تودي نونوس جيل نجاغناي سول تي اي فو سول تي اي ساغار takkal ko xale mu mel ne comme fowukaay ñu ànd ak ñoom fa ñuy liggéeyee xëy itam yóbbaale leen su ko defee di jàngal xale yi woor loolu occupé leen ci xiif gi ba ñibbi ngoon jotee ñu ñibbi si bu ñu ñëwee ñu jox leen ñu lekk ñu jox leen ñu naan te loolu lu am solo la léegoo la nga gis fi ay mag yu ñàkk jom duñu woor li ko waral mooy biñ nekkee xale kenn tàmmalu leen ko woon kon xale dañ ko ciy formé waaye nag woor waru ko su bàyyee koor gi kenn du ko bindal bàkkaar su woor nag dañ ko bindal tiyaaba ba pare lu baax la parce que dañ ko dañ ko ciy entraîné mbokk yi koor dañ koy waajal parce que ni gaa ñu coupe du monde diko ko coupe d'afrique diko di ay élection politique bu ñëw ñu naan J moins nangam J moins nangam heure bi waron na fekk télé yi di bind naan J moins 12 wala J moins 13 heure bi waron na fekk ñi bind J moins 12 lolu mo jaatu won ndax lan moy dafa nek lo xamni touti wul événement bu reuy lo xamni soko woré ko wooree ni ko yonent bi alayhi wa sallam man sama ramadan imanan wahtisaba saaba xufira lahu ma taqaddam min dambi loolu soo ko wooree dañ lay jégal say bàkkaar boo ko wooree teg ko ci yàlla ak yaakaar ci tuyaaba ko jaamu yàlla suñu borom bindal la ci tuyaaba loolu tuyaaba goo xam ni bu rëy la yemu fa dalay jéggal bàkkaaru at mi passé yi loolu tuutiwul de bu rëy moo tax borom bi mu ne wa illa sawm fa innahu lii wa ana ajbihi ba mu des koor man maa koy fayal sa bopp te yàlla ajjana lay faye loo xam ne soo ko waree ñu fay la ajjana mbokk yi loolu tuuti wul bu rëy la heure naa fekk ñu def jour ji mooy nangam moo jaadu woon ndax nekkul lu tuuti yu fi yu fi yu gën a ñàkk fayda ñoo fiy jaar kenn du def jour ji mooy mais bii nag moom am na solo boo xam ni waroon def jour ji temps loolu ci li mat bàyyi xel la parce que day tax nit ñi yëg ne lii ñëw kat lu am solo la lii ñëw lu rëy la lii ñëw tuutiwul bokk na ci kii woor ala aqil mu nekk ko ànd ak xelam dof koor waru ko ki nga xam ne dafa naax koor waru ko ki amee problème xel koor waru ko parce que nit kii tax mu nekk mu kallaf mooy am al aqlu ak tamyiz am xel mën a ràññee xam lu baax lu bon xam lu mu def ak lu mu war a def kañ la ko war a def mu ko war a defee bokk na ci ginnaaw bi mu nekkee loolu mooy mu nekk koo xam ne dafa wér feebarul feebar nag waxuñu yaram bu tàng wala bët yu xonq wala nopp yu métti wala euh, góom ci tànk wala góom ci loxo nga doo day nekk koor feebar boo xam ne soo ko naree booleeg woor dana métti lu deme ni ulcère wala lu demee ni li nga xam ne mooy estomac wala nga pali wala nga grippe yooyu mënoo ko booleeg koor te dafa aajowoo traité wu ak naan garab saa su nekk kon dañ koy jàppal ngant beneen bi mooy euh, feebar bi kon da tere mën a woor yow say bët wànneen nga ne damaa feebar du ma woor wala sa yaram tàng de wala say bët xonk déedéet beneen mooy nga nekk koo xam ni euh, da ngaa ne tukki kon doo doo da ngay wér doo feebar saxe beneen bi nga nekk muqim doo nekk ci tukki da ngay da ngay nekk koo xam ne yaa ngi sa dëkk may tukki bi nag mooy tukki boo xam ne vraiment soo ci nekkee doo mën a woor comme li nga xamni moy yenn façon tukki wa tukki bo xamni da ngay jógee fi wara dem Maroc 3h de temps nek ci aisé lol première classe climatisation ko fa taxul ñuy wax wala nga tukki jëm fi 80 km wala 60 km 4 quatre-quatre bu neex gaaw dem di 4 léegi climatisé ko ko gi méttiwul motax tax yonent bi alayhi salatu wassalam même ba alcorane waxé ni fa man kaana minkum maridan wala safar fa min ayyamin ukhra ku feebar ci yéen wala mu nekk ci tukki na fay ci yeneen bés na jàpp ngant na jàpp idda ci yeneen bés yoo xam ne ca lay fay kon alxuraan dafa wax rek ne ci tukki wala mu feebar mais sunu dafa leeral lu sa tukki alayhi salaatu salaam anas nettali na ne am ñun ñu woor am ñoo xam ne wooruñu mu ne ñi woor ci ñun sikkaluñ wala ñuy ñaaw wala ñuy saboote ñi woor ñi woor sikkaluñ wala ñuy ñaawal ñi woorul sikkaluñ ci kenn mu ne te yonent bi alayhi salaatu salaam xamoon na ko te moom it sikkalul kenn ñu wane ne kon soo wooree te ci woor gi mën ngaa tukki ci soo tukkee te ci tukki mën ngaa woor kenn du la ko tere beneen bi mooy alayhi salaatu salaam li mu tere mooy koor goo xam ne nag soo wooree mën ngaa daanu xam wala nga feebar wala mu métti ci yow lool moo tax mu ni laysa minal birri as-siyaamu fi safar alayhi salaatu dafa ñëw fekk nit ñoo xam ni dañoo saxaaba yi tiim benn waaye di ko ëpp di ko ëpp di ko sotti ndox mooy leen la xaw ñu ne ko dafa woor mu ne laysa minal birri as-siyaamu bokkul ci mbaax nit ki di woor façon tukki bu mel nii boo xam da ci loo beneen bi mooy waye jigéen bu mu gis mbaax bu gisee mbaax kooram yàqu na mënta woor bu mu wasin bu wasinee kooram yàqu na mënta woor loolu deret dafa arrêté waaye bu fekkee dafa ëmb su boobaa dañ koy jàppal ngant bu fekkee ba dafay ragal su wooree euh, loru dañ koy jàppal ngant wala muy nàmpal mu ragal su su wooree du am soow wala su wooree mën naa am soow it waaye mën naa sonn moom ci nàmp yi nàmp yi xale yi nàmp mën naa miir mën naa faible wala mu indil ko ay jafe-jafe charia da koy may mu dog bu koor gi jàllee mu nekkoon dafay fay bokk na ci li ñu waxoon ci nit ki wér mooy bañ a ne ba tële boo màggetee ba tële ba mënatoo woor ndax màgget koor gi da lay wàcc wala nga màgget ba naax koor gi daf lay wàcc kon loolu mooy yenn ci tomb yi nga xam ne mooy tomb bu njëkk bi incha allah dinañ jéem a ñëwaat ci kanam ci àggale li des ci li nga xam ne mooy tomb bi daal di koy tëj foofu waa hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad mbokk yi bu fekkoon nag dañuy ñëw xool koor lan mooy dalilam ci alquran lan mooy dalilam ci sunna ak lan mooy tegtalam ci waxu borom xam-xam bu dee ci alquran suñ borom wax na ni fa man shahida minkum shahra falyasumhu suratu baqara ay 185 ku teewe weer wi falyasumhu na ko woor ku ko teewe falyasumhu na ko woor kon ku ko teewe da ngay woor koku ordre la digal la loolu mooy dalil bi dëgër ci alquran buy wane ne woor weeru koor dafa sax ndax li borom bi wax ni فمن شهد منكم الشهر فليصمه كتير وير بينا كو وار كوك اوردو لا امبيراتيف لا كون كوك موم داي وار فمن شهد منكم الشهر فليصمه كوكو دا فاي نيك كو خامني دا فاي وار عليه الصلاه والسلام موم ينتي بي عليه الصلاه والسلام دا دي واخني بني الاسلام على خمس الاسلام تبخ نكو سي جرومي مبير نيوكو تبخ نيوكو تي نيوكو فوندي با تي جيتو موي ويتال يالا نامو نه سونو بوروم مو يالا كين دو موم kenn xamul li mu xam kenn mënul li mu mën kenn sañul li mu sañ kenn waruñu koo jaamu ku dul moom kenn moomu jaami ku dul moom moo fi indi ñëpp moo fi jëlee ñëpp moom borom bi subhaanahu wa taala mooy rey mooy dundal lépp lu aju ci xeetu jaamu yàlla moom lañ ko war a defal ndax moom moo woñ li tax ñu war ko jaamu te ñi koy jaamu moo leen moom te jaamu gi koy jaamu moom moo leen ko sant moom moo ko bëgg ñu defal ko ko kon loolu mooy shahadatu an laa ilaha illa leneen lu ñu jaamu te du yàlla neen la du dëgg mu teg ci wa anna mu rasulullah boole kook nag ne muhammad mu nekkee jaam yemul foofu boo nangoo ne jaam rek la yaa chrétiens yi ak juifs yi yéen parce que chrétiens yi nangu nañ ne yonent yàlla muhammad jaam la juifs yi nangu nañ ne jaam la waaye lan lañ nanguwut mooy nanguwuñ ne yonent la te yonent bi foog nga nangu ñaari qul innama ana basharum mislukum nit laa comme yéen mooy jaam ma yonent kon foog nga boole ñaari bul ko génnee ci cadre jaam aussi kom ni ko ñeen defee nan yonentu yàlla Muhammad du jaamu yàlla wax ju yàqu la wala du nit du wax ju yàqu la wala motax yàlla sak jaami wax ju yàqu la wala moy borom jaami wax wax borom jaami mom kenn la moy rabbil alamin lolu du baye ci xel kon hadith bobu mu tek ci mune wa iqami salata wal julli wa sawmi ramadana wa weeru koor wa ita'i zaka wa hajjil bayt kon joxool julli jox azaka woor weeru koor ak aj néegu yàlla bi kon woor weeru koor ci ponk yi la bokk alimam ibnu qudama alimam ibnu abdul bar naka noone ibnu almunzir ci kitaabul ijma alimamu nawawi alxaafis ibnu xajar alimamu tibi ñii ma tudd ñëpp ak ibnu xazm toxal nañ jële ci borom xam-xam yëpp ñu ne borom xam-xam islam yi fi mos a jaar yëpp dëppoo nañ saxal ne li nga xam ne mooy koor farata la ci xeetu lislaam bu dul ci koo xam ne dafa am ngànt ngànt loo xam ne du moo ko dogal boppam moo ko wutal boppam waaye sharia a ko jox ngànt la sharia moo ko jox ngànt la ngànt yooyu nag mooy yi ma tuddoon mooy feebar almarat feebar wala almarat mooy magal feebar gi mooy li borom bi wax ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar ku feebar ci yéen wala mu nekk ci tukki na ko fay ci yeneen wax na fa man kaana minkum maridan wax na wa man kaana ma man kaana maridan tamit aw ala safar fa iddatu min ayamin uxar kon ku feebar ci yéen wala mu ne ci tukki da fay ci yenen fan kon lolu moy febar gi wala tukki benen bi moy ki nga xam dafa magal ba mën ta wor magal na ba faible parce que day mag mag day tollu fo xam ci âge 80 ans 90 ans presque du mëna wor ci leg leg day fek xel ma ngi koku day lele anas ibnu malik bi mu magate da daan leele moo tax imaamul buxaari mu ne ci sahiham mu ne wa amma shaykh al kabir اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين an kulli yawmin miskina muni ni bukhari muni ku kanta ki nga xamne dafa nek mak te mom moom wor mo da fay lele parce que Anas bin Malik da doon na leele bi magale lele na ñaari at wala ben at bés bu nek mu lele ak miskin lolu mi ngi ci sahih al bukhari ci kitab as siyam bokku na ci ngant yi moy li ma tuddoon mooy jigéen ju gis bax wala mu wasin ya sa ni mu ko waxe kunna nu'maru bi qada'i li nga xamne moy as-sawm wala nu'maru bi qada'i as-salat daanuñu digal ñuy fay koor waaye daawuñu fay julli ndax fay julli coono gi ci nekk juróomi fan boo ko toogee julli woo nga war a xëy di ko war ci juróomi fan euh, loolu day nekk ñaar fukki julli ak juróom loolu day metti vingt cinq julli cinq fois cinq vingt cinq lay jox cinq jours ci cinq prières kon dafa métti bokk na ci jigéen juy nàmpal wala mu ëmb ni ma ko waxee woon sànq bokk na ci yi nga xam ne nag day yàqu koor ñu war koo xam mbokk mooy lekk te naan te yaa ko tey ndax mooy suñu borom wax ji mu wax ne wa kulu washrabu xataa yatabayyana lakum alxaytul abyad min alxaytil aswad min alfajr summa atimmu siyaam ila leyl na ngeen lekk na ngeen naan ba fajar gi ba ngeen mën a ràññee lëndmaay gi ak leeraay gi muy fajar gi xar na ko defee ngeen ngeen arrêté ngeen matal koor gi ngeen matal koor gi ba nag guddi dugaat maanaam ba bi so kon li muy teg mooy bëccëg kenn du ci lekk te naan te yaa ko tey ku lekk te naan nag te moo ko tey loolu yàqul koor gi parce que alayhi salatu wasalam wax ne ni man nasiya wa saimun fa akala aw shariba falyutimma wa saqaah xadis boobu muttafaqun alayhi la muy xadis abu mu ne ki lekk ci ne continué kooram suñu borom moo ko lekkal moo ko naandal mbokk yi ñaata ci ay nit fii Sénégal ñoo yàq seen koor woor fàtte lekk daal yi dog nga laaj ko lu tax nga dog mu ne man kat sama koor yàqu dama fàtte lekk déedéet koor dañuy jàng àtte yi mbokk yi dañ koy jàng bokk na ci di yàqu koor mooy sëy ci bëccëgu weeru koor te dafa woor kooram yàqu na koor gi yàqu na benn ñaareel bi day tuub ñetteel bi day fay ñeenteel bi day kafaara kafaara gi mooy goral jaam wala woor ñaari weer yu tegaloo wala mu leel juróom benn fukki miskin loolu li koy wane mooy xadis abu hurayra nee na dañoo toogoon ci yonent bi alayhi salatu wasalaam is jaahu rajulun fa qaala ya rasulullah halaktu fa qaal maalak mu ne yonent bi benn waay dikk ne yonent man alku na yonent ko lu xew qaala waqaatu ala imraati wa ana saim mu ne damaa joteeg sama soxna te damaa wóoroon fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa taatiquha ndax am nga li nga xam ne mooy eh, jaam boo mën a goreel qaala laa mu ne ko déedéet <coughs> qaala hal tastati'u an tasuma shahrayni mutataabi'ayni ndax attan ngaa woor ñaari weer qaala laa mu ne déedéet qaala hal tajidu it'aama sittiina miskiinan ndax mën ngaa goreel juróom benn fukki jaam qaala laa mu ne déedéet نينا فما كسر النبي صلى الله عليه وسلم يننت بتوك توتي فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق بعرق فيه تمر نينا يعني ينين تبي عليه الصلاة والسلام بين ندب بو خمني نتو كايلا بو خمني دفع عليه الصلاة والسلام أنا كدون لاتي أين سائل فقال أنا من من لا قال خوزها منك جلكو فتصدق بها أنك دم سرحك وليلك ندخ بكار بواتي فقال رجل واجنكو أعلى أفقر مني يا رسول الله ينين كان لا يكوي جوخ نخدمكو يجوخ كمو fa wallahi ma bañ a laa ba tayha ahlu baytin afqara min ahli bayti géej naa ci yàlla tund bi yëpp madina ba mu jeex amu fi kenn koo xam ni moo moo gën a ñàkk sama waa kër na fa daxika nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi daal di reetaan hatta badat an yaabuhu ba ay bañu dëgëjam feeñ suma qaala at'imhu ahlak mu ne ko na ko leel sa sa njaboot moo tax ki nga xam ni def na dafa war a leele bu fekkee ne moom fii la toll mënul amul dara miskin faqir la soo boobaa da koy wàcc waaye lay tuub bàkkaar bi parce que yàlla du teg bakkan lu mënul kon loolu ku ko def ci bëccëgu weeru koor kon noonu lay def loolu mooy li nga xam ni moom mooy àtt bokk na ci mooy ki nga xam ni dafa def lu ñuy tuddee istimna muy masturbation ku ko dee yàq kooram waaye bu fekkee dafa nelaw gént am lu génn ci moom wala mu amee euh, moom mu dafa amee feebar boo xam ne day jékki-jékki di génne te du tu nekkul loo xam ne sax dafay ànd am na ko provoqué kooku kooram du yàqu parce que bokk am génnul ci ixtiyaar ñetteel bi mooy ku wàccu te yaa ko tey sa koor yàqu na yonent bi alayhi salaam dafa wax ni man zaraahu alqayu fa laysa alayhi qada wa bari saqa amdan fal yaqdi képp ko xam ne koor da laa dominé mu ne bul fay waaye ku def lu tax nga nga nga ku def lu tax nga wàccu su boobaa da ngay fay lu demee ni nga xam ni lii xet bi su ma xeeñee damay wàccu nga dem xeeñtu ko kooku yaa ko tey te yow xamoon nga ne da ngay wàcc kooku bokku na ci bokk yi mooy képp koo xam ne dafa yéene dog dem ba ci digg koor gi mu am yéene naan man dama am yéene dog ah fas ko ci xolam ko korom da yàqu wala ki nga xam dafa génn ci dafa génn ci lislam dafa ridda dafa woor ba pare bi mu wooree mu dem ba ci di digg bëccëg bi man daal mu ne man daal gëmatuma lislam man daal damay génn ci lislam wax wax ba pare dëggu ci nag ànd ak ba pare mu nekk dëgg kooku koor kooku yàqu na bis bu tuubaatee ñëwaat ci lislaam bés boobu da koy fay borom dana wax ni la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min xaasirin soo bokkaale yàlla sa jëf an yu dana ba kon ki nga xam ne tubbi na génn ci lislaam day tàbbi ci bokkaale su ko defee kooku kooram dafay nekk loo xam dafay yàqu bokk na mbokk yi li ñu sopp ci wàllu koor mooy xëdd yonente bi alayhi salaatu moo wax ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka xadis baa ngi ci Buxaari ak Muslim dee leen xëdd xëdd barke ci ne affaire affaire fuqale laag bëgg lekk laag yooyu la alors que xëdd alayhi salaam daf ko digle parce que dafa am barke. bokk na ci it mooy xëdd ci boppam dafa nekk loo xam ni dañ koo sopp nit ki yéexe ko bañ a lekk deux heures du matin dem tëdd ba trois heures du matin da ngay bàyyi ba fajar gi jege. Euh, Zayd ibn Saabit nee na tasaxara ma ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suma qumna ila salaa yonent bi de bokkoon nañ xëdd bi ñu jóg julli ci fa qultu anas nee na ma ne ko kam kaana qadru ma baynahuma diggante julli gi ak xëdd bi ñaata woon qaala xamsiina aaya mu ne ko à peu près cinquante aaya li mooy tolloog suratu yasin loolu boo ko jàngee ci jàngin bu gaaw lool waxuma nekk ci diggante bi dina nekk moo tax kon loo xam ne lu baax la bokk na ci liñ bëgg mooy taajul fitr mooy gaaw a dog gaaw a dog nag waxuñu nga dog te jant bi sowul mooy boo yëgee ne jant ko yéexee alayhi salaatu salaam dafa wax ni ci xadis sahl nekk ci lu baax di nekk ci yiw di nekk ci jàmm di nekk ci xéewalal yàlla yërmandeem dok. mbaaxam fii ak ngi gaaw a dog bokk na ci liñ bëgg mooy nit ki dog ci loo xam ne lu tooy tàndarma mu mu tool am ci borom xam-xam yoo xam dañ ko ci charte euh, waaye na am tàndarma rek bu fekkee amul tàndarma mu naan ndox ay guuxu ndox dogee ko anas ibn malik nee na ma kaana rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sallam ala rutabat qabla an yusalli. ودنا كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي يونت بي عليه السلام دان جيفنديكو تاندرما رطب avant muy julli ci fa in lam takun rutabat fa ala tamarat bu amul tàndarma bu tooy boobu mu tàndarma bu mu am rek fa in lam takun xasa xasawaat bin ma su amul loolu lépp mu guux ay guuxu ndox mu guux ay guuxu ndox kon loolu ci la borom xam ñu ne bu amutoon lu mu lekk sax day yéene dog boo waree ba heure dog jot nga xool xool amoo dara loo lekk wala nga nekk ci digg àll wala nga nekk foo xam ne amoo loo lekk amoo loo naan da ngay yéene dog ci sa xol boo yéene rek doy na sa koor jeex na bokk na ci teggin yi liñ bëgg mooy di ñaan jamono bi muy dog ndaxte yonente bi alayhi salatu salaam moo wax ni salaasatun laa turaddu daawatuhum ñett ñi kenn du kenn du dàq seen ñaan as-saa'im xataa yaftur ki woor ba keroog muy dog wala imaam al-aadil imaam bu maandu wal mazlum ak ki xam ne dañ koo bëri sopp liñ sopp bëri saraxe jàng alquran dogal ko woor yooyu yëpp ay jëf yu baax la euh, ibnu abbas nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaasi bil xayr nee na yonente bi fa nekkoon koo xam ni dafa yéwee noonu lool moo gënoon a tabe ci nit ñi wa kaana ajwada maa yakunu fi ramadan waaye weeru koor doon gën a tabe xiina yalqaahu jibril bu fekkoon jibril da koy dikkal ci la doon gën a tabe kon tabe googu bokk nañ ci bokk ci liñ ci bëgg mooy salaatu an nawafil fi leyl wa tahajjud julli guddi yi naafile yi euh, Aïcha nee na yonent bi alayhi salaam kaana ida daxala al ashru bu fukki fan yi duggoon shadda mi izarahu day gën laxasaayu waa day dafoo dundal ay guddeem wa ay ahlahu yee li nga xam ni mooy waa ay ay waa këram xadis boobu mi ngi ci Buxaari ak Muslim bokk na ci liñ ci bëgg mooy umra ci alayhi salaatu salaam dafa ne umratun fi mel ni ko aji Màkka ci ay tuyaaba bokk na ci mooy teggi ni mooy bu fekkee nit ki dafa woor am ku koy songu xuloo wala xeex wala saaga ndax wax na inni mru'un saaim man da damaa woor ndaxte dafa wax ne moom alayhi salaatu salaam idza kana yawm yaw idza kana maso, mi ahadikum ken ken bos bi mu wor fala yarfus wala yasqab bum ci kaf bum ci tiaxan bum ci fo fa in sabba bu ko ken sagawé wala khulok mom aw khatal wala mu mom bu xex mom fa li ko ni mursal nako wax ne man dama wor nako wax ni dama wor bokku na ci nga xamni nak dañ ko sip ci wéru koor moy di eppal ci galaxndiku yonent bi alayhi salaatu dafa waxoon saxaabi bi ne ko wa baalig fil istinshaq na matal sa sarax sa gàllaxndiku illaa an takuna sa ay wala dangaa woor dañuy bañ am lu jàll bokk na ci mooy foon jigéen yàqul koor nag waaye am na fu muy àgg dañ koy sib parce que mën naa tax nit ki dootu maîtriser boppam ya si daana wax ne yonent bi de daana woor foon soxnaam waaye moom da a tag moom ay mu ne wa kaana amlakukum li arabihi yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen gën a maîtriser boppam maîtriser boppam na mooy ci loolu bokk na ci mooy di ñam aw ñam te amoo ci aajo bu dee jigéen ji togg may nañ ko kooku dara nekk comme ni ko ibnu abbas uh, radiallahu anhu uh, waxee woon mbokk yi kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi fës yi nga xam ne nit ki war na koo xam bokk na ci nag li nga xam ne du yàqu koor mooy diw diw sa yaram wala diw sa bopp wala parfum wu yooyu yàqul koor wala wana tuflit wala jëfandikoo pompe asthmatique te ñu bëri tey dañ ciy sono yi Sénégal ku woor du woor weeru koor ba mu doo parfum weeru koor ba mu doo diw soo ko waxee mu ne damaa dégg day yàq koor te déet lépp lu yàq koor am na kon ñu ngi yemane fii di delluwaat di nuyu mbokk yëpp soxna Khoudia ak euh, euh, Pape Mor haza wa sallallahu wa sallam baraka nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wassalaamu aleykum